nga xamante ni euh, dañu njort ni moom moo jiitee lu ñeen ñeel wàllu immigration clandestine foofu la ca diwaanu Mbour ku euh, tudd Doudou Faye daal di ci ñàkk bakkanam mu di ab ndaw bu amoon lu tolloog fukki at ak euh, ñeent moom mi lee bëggoon nekk footballeur kon daal di ñàkk bakkanam ci géej gi daañu ci ñëw ci kanam incha allah wala si suñu yeneen i édition Serigne Saliou wàllub immigration clandestine ba léegi mu ngi d'actualité donte def nañ ci ay effort yu bari. c'est malheureux encore ñu déggaat doomu Sénégal bu ñàkk bakkanam ci immigration clandestine lii dafay wane ne politique bi nga xamante ne moom la gouvernement bi mettre en place ba léegi pour mhm. stopper émission clandestine ba léegi euh, mën naa ne politique boobu euh, taxawul mhm. parce que su taxawoon réellement tey solution yi dina am quand même lu muy jur mhm. mais suñ demee boobu léegi que nit ñi malgré tout en tout cas li ñu wax yépp ci xëyu ndaw yi

parce que depuis 2006 y a une politique qui est mettre en place pour stopper vraiment l'immigration clandestine. mais on a l'impression que l'État a fait l'immigration euh, l'immigration clandestine. en tout cas nous ci am solution de solution La solution est tout simplement faire de sorte que les yi ne a am liggéey ci réew mi. yi gens ñu amee ci réew mi nga wax dëgg yàlla dinañ toog fii mais su fekkee ne da nga toog bu benn âge bi amuloo liggéey amuloo benn perspective d' avenir. Mhm. loolu moo leen di pousser vraiment à cette folie parce que ñi nga xam ne dañuy jël géej gi aussi vraiment jëluñu ko de gaieté de cœur parce que dañu amul dañu amul dañu amul pexe. Mhm. une fois j'ai entendu benn xale buñ ko laajee moom danay déjà dee mënul weesu dee parce que ñoom danay déjà toog Sénégal déjà c' est une mort. donc dem ci géej gi aussi dee c' est la même chose ce qui veut dire que ñoom bu ñu yemalee toog bi ak dem bi comme pour ñoom jàpp nañu dee mhm. donc ça veut dire que ñooñu dootuñu gis dara ci seen kanam mhm. mais nag état bi ñoom de façon beaucoup plus lucide war nañu gën réfléchir sur cette immigration clandestine parce que ça connaît quand même de faire des ravages dans euh, euh, en tout cas chez nos jeunes dëgg la sëñ Saliou ñu wax nag euh, ci wàllub yoon ak coow li crash bu Sénégal Air daañ ci sëgg atte bi fanweeri fan bu weerub juin lay doon ap audience spéciale lay doon itam procès bi nga xamanténi ni ki tey sax lañu ko dig namoon amal ki nga xamante ni mooy juge bi ñuy dénk euh, dossier bi moom euh, moom moo ko dàkk euh, ki nekkoon directeur général kon bu ANACIM ak ñeent ci ñamu doon liggéeyal di fàttali ni tuuma yi ñu teg ci seen i ndodd bokk na ci homicide volontaire tuuma yoo xamante ni sax ki leen inculpé woon mooy ki fi nekkoon doyen des juges ci jamono jooju mu di Samba Sall crash boobu la itam di fàttali ni lu tolloog juróom-ñaari doomu aadama ñàkkoon nañu ci seen bakkan ñoo du ceeg Safiatou Badjaye mbirum crash Sénégal Air dinañ ko vidé si fanwéri fan ci weeru juin bi ñu dëgmal ci audience spéciale ci walu wowe sax justice française bi moom yebaloon na benn commission rogatoire fii ci Dakar ndax nak kenn ci victime crash boobule doomu France la si juróomi fan ci weeru septembre atum 2015 ñu fàttali benn avion d'évacuation médicale bu yeboon lu toll si juróom-ñaari nit moo daanu ci large Dakar drame bi nak mu ngi am ci lu toll si fukki euh, junni euh, mètre altitude ci euh, ville bu Tambacounda appareil d'évacuation médicale bi ñu affrété woon SOS médecin Dakar mu ngi doon effectué ben liaison ci diggante Burkina Faso ak Dakar pour ben urgence médicale ci boobule bés nag le frôle ben appareil ligne équato guinéen bi dem Cotonou waaye de dafa mujj rek continuer dem Malabo ginnaaw bi mu jéemee euh, jokkoo ak appareil sénégalais bi te antuwul suñu sukkandikoo ci résultat enquête appareil Sénégal Air bi ci boppam nag amul couverture radar ci jamono bi accident bi di am lu ni mel sax moo tax ba ci niveau vol Boeing bi ba léegi suñu sukkandikoo ci directeur boobu les structures appareil bi ba léegi nag nañu ko ndax nag dafa mujj abîmé wu ci lu toll rek ci juróom-ñeent fukki kilomètres ci suñu côte.

waaye ak jafe-jafe yu am Russie ak Ukraine ndax Sénégal pare maintenir subvention bu muy def produits pétroliers yi lii mooy tontu Sophie Gladima bi permettre waxtaan waxu ñu bari doon ñaaw lu tax naan ñu am compagnie nationale mais compagnie nationale compagnie nationale fu mu permettre ñu réguler secteur c'est vrai nañu secteur bi mais de faire par rapport à la sécurité et à la sécurisation de ce pays quand même qu'il y ait un acteur public ministre de la santé tamit nekkoon na ci ndaje mi ci lu soxal mbirum asu soxna Abdoulaye Diouf Sarr di xam ne ni buy mbir mi di am système bi amuloon benn jafe-jafe ci boobule bërëb mu ni du ñu accepter ñu am comportement yu bonte nekk ci système bi di yàkkal ay junni junni personnel de santé yu am comportement bu baax ci beneen fànn gi Abdoulaye Diouf saar di xam ne ni xel xalaatul muy tekki ndombol tànkam

ñu yeneen i édition Mansour euh, yow yaa doon laajte gouvernement face à la presse barki dem tay amna waaw amna itam bari nay déclaration yo xamni ni génn na ci mais lima ma ci ministre soufi Gladima faaw ñuy xolat communication parce que ci wax ji nee na am nañu lu xaw a doy. Mhm. boo dégloo wax ji. Mhm. lu xawa doy. amna itam lu ñuy xaar wër yi ñu jëm. amna itam lu ñuy xaar. Mhm. c'est-à-dire que bu ñu nee ba tollu fofu rek moy li Seydi Gassama doon wax suñu stock stratégique bi ñu war am nekku fi dans ce cas faaw nga amna euh, manquement lan sabab benen bi ci dess euh di tontu. wax la wax ju sew. te institution un ko ak buñ ko na wax li am fay dafa wax ni terre bi na milliards. 3 milliards. transporte tant de personnes. dafa chiffre de xam dafa exact ak loko contre contre mën nga dellu soit mise en mettre en cause li nga xam moom la wax. mais joxe na chiffres yu leer lu leer xam nga loolu leer na. transporté na lii bu ne ko gëm nga a décortiquer ont def say calcul ci xaalis bi mu joxe ak nombre de personnes yi nga xam ni tukki nañu ci. mais teewul di nga am fu ba wax mais par contre ki ci des. li wax da nga gis ni dafay tontuwaale ay waxu mbese mbese. te du loolu la ñuy xaar ci institution. fexe ba ba tey nii may wax ak yow station boo fa demee doo am gasoil.

Les ñu xamni loolu la wala ci suñu gaay nga xamni ñoo indil pétrole fi wala ciowal impacté ay question la yo xamni dañ ci bëgg ay réponses ci comme ni mu ko mhm. par contre xam nga taxaw ci nous, Sénégalais ci fi ñu ak situation yi di leen promettre inondation du yow kay dina màtteeg du màttee waa ji siiñ na baaraam baa ngi joxoñ nañ xaar ba nawet mhm. fii lañ nawet jot ñu waat ko ñu ne presse bi journaliste yi nangam nangam mais lañoo noppeegul ci situation buy génn ndakaaru ci inondation bàyyil ba mu taw nga xool mhm. Kër Massar gi mu naan do inondation boo ma toppee mu yóbbu la ndoxum daaw ma fu mu nekk ba léegi ndoxum daaw waaye dina am inondation du am inondation ren te taw taw daaw ba des fi ba léegi kon il est toujours inondé. xam nga lolu moy lolu moy wax bo xam dafa melni yow bayyi wo xel ci Sénégalais yow ñu ngi lay déglu wala am nañu xel comme yow wala dette mhm. euh ñentel bi Abdoulaye Diouf sax nee du démissionné am ci droit. Mhm. parce que ñi demandé mu démissionné teguñu ko fa woon. Mhm. am droit ni tam duma ma légui nak nag ndey mbili ji ci bopam ki ka fa teg.